jotaay xibaar yi ci kàllaamay wolof ñu koy door ak lu soxal tamit audit yi ñuy wéyal nag ci dëkk bi jamono ji waa banque mondiale nag yëkkati seen loxo tamit ne daañu jàppale Sénégal bu dee nag nangu nañ ko ñu jébbal ne jumtuwaay bi nga xamante ni banque mondiale mi ngi ko amee ngir xam lépp li nga xamante moo di wàllu koppar bu ñu lakk bitim réew ngir ñu mun ko delloo si ci dëkk bi eh, kii di directeur adjoint bu banque mondiale doon amal gan ci Ndakaaru Matar Diop xibaar tamit ni banque mondiale dina yëkkati ci lu tollook 85 millions ci dollars ngir nag dugal ko ci Sénégal ci wàllub ay projet yoo xamante ni nag dinañu eh, suqali lépp li nga xamante ni moo di jafe-jafe yu ñu am ci wàllub courant bi ñu teewlu Matar Diop ci micro suñu natango Madick Gueye li waaye woowee Nations Unies ak Banque mondiale am nañu loo xam ni ñu koy woy STAR muy benn programme boo xam ni euh, euh, su fekkee ni benn dëkk bëggoon na ñu rapatrier ressources yi mën nga mën nga leen laaj. xam naa ni que dégg naa ni que euh, gouvernement Sénégal bëgg na waxtaan ak Banque mondiale ci. ci ci ci ci fànneel boobu wante maa ngi maa ngi xaar ba ñu ba dégg ba dégg euh, exactement lan la gouvernement Sénégal bëgg a def te su boobaa ñun. Euh, euh, su fekkee su fekkee ni laaj nu jëmba nga mag mu njaaj ñu dimbali moom su fekkee ni parce que loolu amu ci décision c'est benn instrument la benn programme boo xam ni banque mondiale la programme boobu du maak maak yëlif mhm. programme boo xam ni banque mondiale ku ku bokk ci banque mondiale ma nga ma nga ma def programme boobu donc su fekkee ni Sénégal euh, bëgg na euh, banque mondiale dimbali ko ci ci fànn boobu euh, banque mondiale dina ko dimbali du sama décision du décision keneen programme indépendant la boo xam ni Nations Unies ak banque mondiale ñoo koy banque mondiale mu ngi préparé benn benn projet ci ci maanaam ci énergie xam xam naa ne électricité bi fu mu ne nekkoon na problème te nekk na ba léegi benn problème ci Sénégal dégg naa ni wàññeeku na trop coupure yi wàññeeku na. bu baax mais euh, euh, état sénégalais nee na ñu ko soxla ñu euh, ndimbalu banque mondiale. donc ñu ngi préparé benn projet de quatre vingt cinq millions de dollars boo xamee ni su soobee yàlla ci le 16 juillet dinañ ko présenté suñu suñu suñu fale ci Washington. su loolu weesee waxtaan nañu itam nu ñu dimbali budget Sénégal ci ci at bu bees bi. ci 2013 55 millions de dollars juróom fukk juróom millions de dollars Sénégal euh, euh, euh, dinañ ko dimbali gouvernement Sénégal pour que ñu mën a ñu mën a ñu mën a dimbali la demande sociale nu ko nu ko waxee ci ci Sénégal